Sénéinfo International. Sénéinfo International bonjour bienvenue lu gën a fës ci xibaar yi euh, jeudi 16 euh, euh, novembre 2023 ñu njëkkee ko rek ci journal L'Observateur bi nga xamante ne moom dafay poser wu question tey jii fan la milliards yi nga xamante ne moom ñu ngi ko investir dans le domaine de la santé fan la ñu jaar. donc euh, parce que dañoo seetlu ne difficulté yi ba tey dafa des difficulté dans le renouvellement des équipements retard dans le paiement des charges de personnel et cetera donc milliards yi nga xamante ne euh, gouvernement bi mu ngi koy investir dans la santé l'observateur tey xëy na laaj ndax milliards yooyu fan lay jaar parce que bu tey nii dañoo gis ni secteur bi euh, jusqu'à présent dafay gën di sooxe donc ba tey rek ah, ñu des ci journal bi si tournée bi nga xamante ne Macky Sall mu ngi koy def. Euh, dans les régions de euh, Kédougou euh, Kaolack Kaffrine ak Fatick ñu ne étape bu defee Fatick démb commencé donc investir na waa si fale investir na investir na Kaolack plutôt mille milliards de francs CFA donc Dramé ñu jàll ci beneen journal donc tey jii ñu ñëw si Vox Populi Vox Populi donc Vox Populi aussi mu ñëwaat rek ci l'appel à la mobilisation de quatre-vingt-quatre personnalités pour défendre les principes démocratiques donc dañoo ne quatre personnalités tey ñoo taxaw euh, taxaw te pour défendre les principes démocratiques du Sénégal parce que comme pays Sénégal que ñu ñu ñëpp xamee xam nañ c'est un pays de démocratie donc autorités taxaw nañ temm pour tey jii vraiment gën a taxaw suñu démocratie démocratie bi nga xamante ne peut-être que ñu bëri dañoo jàpp ne dafa xaw a euh, sooxe donc euh, voilà ñu ñëw rek encore ci journal bi des tey ci journal bi rek euh, ñuy wax tey euh, arrestation imam Sall donc defer nañ ko dikki démb fële ci ci prison ba raame ñu jàll ci beneen xibaar ñu ñëw rek ci Sud Quotidien bi nga xamante ni dafa gën a fësal dans sa une promesse yi nga xamante ne Macky Sall def na ko au niveau de Kaolack mille milliards en programme multisectoriel de développement de la région de Kaolack donc secteur yu bëri la laal laal na secteur yu bëri def na inauguration yu bëri notamment inauguration euh, visite chantier université bi nga xamante ne mooy université du Sine Saloum euh, El Hadj Ibrahima Niass presque chantier yi léegi mu jeex dans trois mois ñu ñu ko def na aussi euh, maison de la inauguration maison de la citoyenneté donc Macky Sall jël na ay kii yu bëri jël na ay jéego yu bëri foofu nga xamante ne mooy mooy étape bi nga xamante ne def na ko Kaolack c'est dans le cadre de sa tournée économique dans dans ces régions nga euh, xam ne ñu jàll ci beneen euh, étude yëlekaay ñu ñëw ci wal fajri bi nga xamante ne vraiment ñëwaat na si encore euh, tey ji nga suba nga xamante ne moom mooy jour journée bi nga xam ne mooy journée fatidique la ñu mën a wax parce que suba le 17 novembre journée bi nga xam ne de la justice de la CEDEAO si la war joxe verdict bi nga ndax Sonko day bokk si élection présidentielle wala du bokk donc suba lañ koy xam parce que cour de la justice de la CEDEAO dina dina dina dina àtte joxe si euh, xalaatam donc ñu ne grosse pression sur Macky Sall parce que dañu jàpp ne Macky Sall euh, dafa am pression bu nekk ci moom parce que verdict boobu euh, mun na ne na dem sa boo ay manifestation am ñaanuñu ko mais donc ñu ñu jàpp daal pour Walfadjri daal mu ngi inquiété wu parce que par rapport ak décision bi de la justice de la CEDEAO war na ko jël Euh, si Ousmane Sonko ndax day bokk si élection wala du si bokk jàpp nañ ne daal il y une grosse pression sur euh, Macky Sall journal Walf quotidien dañu ko xamal si euh, xibaar donc ñu jàll rek si Libération Dramé donc Libération def na dans sa une l'arrestation de Oustaz Oumar Sall donc il est il a il a déjà été placé placé en garde à vue démb donc mu ñëwaat rek si. c'est les déçus ah les déçus li nga xamante ne moom moo euh, waral peut-être que ñu arrêté ki nga xamante ne moom mooy oustaz Sall wala ñu defeere ko nee nañ ñëwaat nañ encore en son parcours nee nañ il est âgé de cinquante et un ans Omar Sall de son nom complet a été placé en garde à vue pour diffamation et insulte commise par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance et de entre les personnes donc Euh, loolu la ñu ko accusé ne à l'origine de la plainte nee nañ à l'origine une plainte du collectif international des talibés Cheikh et autres donc euh, voilà moom dem jàkkaarloo na ak euh, ñi nga xam te ñoo ko doon at ñi nga xamante ne ñoo ko doon àtte mais moom lu mu leen oustaz bi lu mu leen xam ne dafa ne moom nee na kiiwul kenn adressé wul kenn waaw moom saagawul kenn adressé wul kenn loolu la imam bi xam le devant les enquêteurs donc.